Euh, lu tax courant war a mën a seer Sénégal. seeraay boo xam ne euh, jéggi na dayoo. Euh, mu mel ne nag du du du lu bees ndax courant jël nañ ko fi yóbbu ko Guinée Bissau may waaw ah. di di leen may courant di leen jàppale te ñun amuñu courant <laughs> te noonu la seere ci ñun ah. jamono njiitu njiitu réew Macky ma woon Macky Sall la woon ah. bu weesoo loolu itam euh, nan la ñu mën a amee tey pétrole xëy na bi ñu ko tàmbalee exploité yàggul mm-hmm. waaye est-ce que li fi ne ci pétrole ak gaz bi war a ñëw mën nañoo njottu ne du yàgg ci dara courant mën naa dem ba jar njëg goo xam ne daal euh, askan bi dañ ko attan lan mooy jafe-jafe ak scandale yi nga xam ne am na foofu waaw jërëjëf euh, Pape Maguette jërëjëf coro mm. euh, courant bi. Mm. Euh, wax dëgg yàlla pétrole ak gaz bi ñuy séentu. Mm. mën na ko wàccee. mais même en dehors de loolu. njëg bi fi nekk. dafa jéggi dayoo parce que dafa am ay surcoût. dafa am benn mafia de l'énergie. buy dund ci suñu kaw ñun. ku ci nekk na jël téléphone na jël Wave mu xool cinq dernier achats de courant yi mu def. ci même montant. moo xam 5000 la. Oh. moo xam 10000. boo ko jëndee juróomi yoon. Mm. juróomi yoon doo am même nombre de kilowatts. Mm. kilowat heure bi dañ koy facturer ba 340 ba lu ko ëpp te yow miy consommer doo ko xam. Mm-hmm. kon fi mu nekk nii dañu nekk ci situation boo xam ni kilowat heure bi amul prix. Mm. pour ñuy fay prépayé ku ci nekk na xool cinq dernières factures am bu dee dix mille mu diviser ko par nombre de kilowatts bi mu am. Mm-hmm. mu xool ni day varier tout le temps day varier te loolu teguñu ko fenn. Mhm. te contrat la bu dox ci diggante consommateur bi. Mhm. ak Senelec. Mhm. contrat de vente et d'achat la boo xam ni critère bi ci njëkk mooy prix bi ngay jaayee kilowatt heure bi ñaata la. kii jël compteur prépayé dañ ko war a wax nangam lañ lay jaay kilowatt heure. mais loolu xamuñu ko. ñii seetaan na ku ci nekk. mën na xool dernier achat euh, euh, prépayé am euh, du même montant bi boo ko diviser par le nombre de kilowattheure loolu déjà muy arnaque léegi nag bu fekkee ni dañ ci bëgg a dëxëñ ay anciens directeur de Sénélec ay anciens ministres de l'énergie ay anciens cadres de Sénélec ay anciens ingénieur de Sénélec nekk di lëkkaloo ak ay tubaab di créer ay centrales pour jaay Sénélec courant par exemple central solaire boo xam ne mu ngi jaay Sénélec courant trente cinq francs yow Senelec di la jaayaat courant boobu cent quarante ba trois cent quarante. loolu je crois que lu ñu teg suñu ndodd la lu dul yoon loolu jotewul ak dara suñu gaz ñëw ak suñu pétrole ñëw. Mm-hmm. mafia la mauvaise gestion la. Mm-hmm. donc intérêt euh, euh, communication démb bi moo doon. Mm-hmm. ñu xam ni Senelec ca la ñuy consommer ci courant yëpp. vingt pour cent la ciy produire. 26 pour cent. 74 pour cent yi da koy jéggaani te mu ngi koy coûter 451 milliards par an moom lay seddale les producteurs indépendants producteur indépendants yooyu nag ñoom ñooy diisal suñu facture. parce que Senelec c'est la société nationale d'électricité kon moom defar courant jox nit ñi mooy rôle mais jënd courant jox nit ñi du rôle sinon ñu bàyyi ñay produire courant jaayal seen bopp courant du doon gën a yomb bu Senelec sax. Mhm. parce que ñoom ñu ngi koy jaayee Senelec ay 35 francs bu gën kaa cher 71 francs mais dafa am ay cadre Senelec ak ay anciens euh, dignitaires du régime yoo xam ne dañu nekk ci gannaaw groupe yooyu. donc léegi nag ngeen mën a comprendre centrale Sendou bi nekk Bargny ni Sénégal moomu ko producteur indépendant la ñu koy fay lu yaas centrale bi dañ koy fay 18 milliards par loolu bokkul ak fa ñu def central bi. fa ñu central ba ca boppam. xam nga affaire bi nii lay demee ana sama note démb dama réeraloon sama ay notes mais je crois que notes yi euh, retrouvé naa ko. centrale bi ci boppam. dañ koy euh, fay soixante quinze milliards. ni ko léegi dix huit milliards yi location centrale bi la ci boppam quarante et quelques milliards yi carburant la la ca des frais d' entretien et de personnel la donc loolu. mu nekk lu jéggi dayoo Manantali barrage Manantali nga xam ni OMVS moo ko teg ñëpp xam ni état OMVS yi ñoo ko moom. ñoo ko seq mais producteur indépendant lañ ko jox sud africain mooy jaay Sénélec courant foofu est-ce que xam ngeen loolu. mais loolu dafa jéggi dayoo mu ngi mel ni suñu ndox bi ñu naan rek ñu jox ko tubaab bi. mu koy jaay di ñu ko jox. mais société de patrimoine maanaam lépp li matériel SONES féetewoo ko. tuyaux yi bu yàqoo SONES mooy dem defari ko. Mhm. mais exploitation bi tubaab yi ñoo ko yor. Mhm. mais Sénégal pourquoi muy nangu loolu. Mhm. champs solaires yi Macky Sall doon inauguré ay Malicounda ak ay Bokhol ay partout ba ñëpp kontaan ci foog ni. am nañu léegi euh, production énergie solaire bu jéggi dayoo man sax dama ci kontaan noonu. nekkate ay français ñoo ko moom ay italien ay américain ñu jox leen suñu cent hectares ñu lal ci seen panneau solaire di jaay Senelec courant bi. Euh, ci lu yomb Senelec di ñu ko jaayaatee ci lu cher donc bénéfice bi Senelec di def te mu nekk établissement oh, public non amul droit def bénéfice établissement public amul droit def bénéfice service mm-hmm. public mm-hmm. moo ko tax a jóg mais pas ay bénéfice mm-hmm. donc loolu mooy répercuté wu ci suñu ndodd centrale Tobène Kahone yooyu yëpp ñu foogoon Senelec moo ko moom Senelec nekkate moomu ci dara dara dara dara dara ay doxandéem la ay fay ñoo xam ni dañoo ëmb ay anciens dignitaires de Senelec mhm. et du ministère de l'énergie donc loolu mhm. moo tax courant bi cher mhm. en dehors de source d'approvisionnement en combustible yi parce que bu dee centrale bu Malicounda bu solaire par exemple ñu ko réaliser ñu ngi ci def vingt deux milliards léegi ñu ni vingt cinq ans lañ koy exploité après doo ko jox Senelec mu nekk moomeel mhm. mais Senelec mu ngi fay at bu nekk producteur indépendant yi mhm. cent cinquante et un milliards kon ñaata centrale solaire de deux cent de de vingt deux milliards la ci mën a la mën a defar mhm. bu ci defaree dix nekk deux cent vingt milliards li ci des mais mën na euh, jënd central comme bu ñoom Samuel bi West Africa Energy bi nga xam ne deux cent trente milliards la ci Coris Bank def kon chaque année Senelec mën na defar ay centrales yoo xam ne day yokk parc de production plutôt que muy jënd énergie donc amul benn cohérence léegi nag. léegi sud sud africaine bi bi bi jaay. bi bi bi bi jaay. Euh, euh, bi jaay courant fii ci kii bi. Manantali waaw mais moom ban ban rapport la am ak ñooñu ko tuddee ab cartel. xam nga ban rapport lañu am. Mhm. parce que direction Senelec. Mhm. day jël courant boobu. Mhm. courant boobu ñu ngi koy produire vingt cinq francs mhm. mu dikke leen ñoom coût de revient bi coût de mhm. production mooy vingt cinq francs mais mhm. coût de revient bi trente cinq francs la léegi trente cinq francs yooyu ñoom joxuñu courant boobu de mais dañ ko jaay Gambie Gambie lañ ko jaayaat cent trente cinq francs le kilowatt kon ñu am bénéfice su cent francs chaque kilowatt boo ko totalee mu nekk vingt six milliards yoo xam ni bénéfice la ci loo xam ne ñun ñoo ko waroon jëlee ci euh, Manantali mu dugg ci suñu consommation intérieure daal di def effet de péréquation ci prix bi. Oh. parce que foofu njëg bu yomb la ñu dikkee. mais njëg bu yomb yooyu il préfère jaayee ko cher Gambie. Oh. parce que transport bi mooy gën a gàtt diggante foofu ak Gambie parce que transport bi ligne haute tension yi la. Oh, ñu dugal ko foofu di ci dóor vingt six milliards ak bu nekk. loolu mooy expliquer. ni courant boobu agsiwul sax ci ñun courant Malentali ñun bokkul ci lu ñuy consommer ñun. loolu daal Gambie la gën a jëriñ. waaw am na yeneen ñetti barrage hydroélectrique nag mhm. euh, Felu ak euh, Guyna mhm. yoo xam ne euh, seen production tam dugal nañ ko ci réseau bi mhm. mais Manantali moom ak moom moom moom Gambie lay lay alimenté directement mu leen di jural vingt six milliards laa xam na xaw ma da nga ciy rebondir wala ñu ci après ñu dem ci sëñ Fallou waaw waaw parce